yéen ma leen jox tàngal dama bëgg lu ma wax ngeen jaaraat waaw dama na e ngoone yaay saay saay ngeen waxandoo ko ak man e ngoone yaay saay saay xam nga dama dugg si yaay saay saay dama ragal nit tabari ngoone yaay saay saay gisal danaa tar ta du ma ngoone yaay saay saay damay tar ta du ma ngoone yaay saay. damay torta du ma rek. ngoone yaay saay saay. gisal dinaa torta du ma rek. ngoone yaay saay saay. dama koy jiin waaye. ngoone yaay saay saay. mu dama ragal nit ka bari. ngoone yaay saay saay. tey la rekkante bi. Ah. sa loxoom yaa ci gisuma la maal. tey la rekkante bi eh, tey la rekkante bi. ku sa loxo tooxi ma àll loxo. tey la rekkante bi. tey ni xale yee liiru jaar na ngir. ah di jox ko sa loxo. tey la rekkante bi. Ah, sa loxo meer di gis ma la maal. teel a rëkkante bi ah teel a rëkkante bi. ma aal naa de. waa nuyul nuyul nuyul gaa ñaa ngi de comme tey la rëkkante bi tey la rëkkante bi pa ah da nga may nuyu ah bañ a nuyu yow bàyyi ni nga may nuyu nag ay chaîne yu baax la rek ay tamit tema yeesal ci plateau bi. waaw Ndiaga Ndour waxante wuñu woon lii de. yee kaay na waaw li bokkul ci contrat bi. <laughs> tarkala tarkala tarkala ah. non bokk na ci nag bokk na ci nag. ay kooku kooku kooku mooy dox bien dox bien. mooy dox bien eh, dox bien yaay saay saay. dañ ma koy jiin waaye. yaay saay saay. saay eh, eh, eh damay tàkk du ma leen di yaay saay saay eh, waaw jàllu mus gi nax du ko yor. ah du ko yoree dañu fa eh su ko yoree demi sax <laughs> karkalla karkalla Ngoné Ndiaye géwél nam na ay filingam euh, xam nga man dama am samay façon kan nga ñibbisi kan nga ñibbisi maa ngi woon Paris yaa ngi woon seeti sama rakk ji rek. na si jaay ana papa amoore waa mi ngi koy wax nga fa laa ko xam naa xam naa fi Modou Mouhamed Ndiaye naa ko. léegi bëgg laaj na ma laaj lu ko neex. yéen a ko bëgg a laaj léegi dama bëgg ñu nii. waaw ñu laal waa kañ toogee ñu kañ toogee ah waa kay noonu laal bëggoo ñu ñaar. déenoo def fii rek nii façon nii. waaw ah, da nga bëgg ñu bëgg man de dama dama bëgg yëfu tubaab dama dama bëggoon na beru ak yow. xam nga madame Ba lool si ah. si mooy Tibiri bi Joo. Tibiri bi Joo Tibiri bi Joo. waaw su la neexee nga wékk su la nga takk. ça dépend de toi. xale la xale la tout est possible avec Ngoné Ndiaye toujours ma wax la ko. Eh, kon Ngoné yaay saay saay. Eh, dem na koy jiin waaye du man. ma yow dama ragal nit. tabarike fa. yaay te du ma reen de yaay saay saay bàyyi ma ma du ma saay saay yow tut nen dafay tër tëru reen alors que dafay rey ma reen boo ñëwee ne kañu toog ñun ñaar quoi kañu kañu péto fii dama la soxla. waaw yooyu mooy dama bëgg yooyu ah, non dama bëgg péto ak moom quoi. waaw bi arc-en-ciel arc-en-ciel dama bëgg péto ak arc-en-ciel. tu sais bien que moi j'ai euh, j'ai fait l'école euh, j'ai mes diplômes am na soo fee. waaw ah, dégg nga toj na Paris nag. naa Paris nag. Eh, toj naa Paris sama rakk jël na fi jaay. am na COP ah. am na COP yaay Baba eh, ma toj nga Paris. toj toj ko toj naa Paris ndax maa ngi woon villiers sur mhm. ci sama rakk sama xarit. yàq yaay. Nafa Diagne yàq yaay Baba Diagne njóor ko Dubrun loger nourrir li soigner. <laughs> alors en attendant en attendant ñuy toog pour waxtaan jàkkaarloo euh, mën nañu xool euh, euh, vidéo Ngoné njaay bi dans quelques instants mais en bu amee ku nekk ci téléphone bi ñu jël ko 88 628 22 22 allo. allo. soxna si na nga def. maa ngi fi. waa léegi yow noo gisee li Ngoné Ndiaye indi fii ci émission bi. ah kon dañ ko koy jiiñ waaye du moom moom la. Ah, <laughs> weddi na ko de nee na xoola dafay tër te du rendi kon dañ ko koy jiiñ waaye du moom ko damaa bari kees ah xam naa daa bari kees <laughs> kon nee na mën naa leen nag kenn kenn jiiñu ko ko moom la ko moom la moom noo tudd ak fan ngay wootee hmm? man maa ngi tudd ah, yaa ngi wootee Grand ko ñu góon a njaay sa waaw waaw kontaan naa sama xarit ci loo ne maa ci jàmm ana waa Arafat ñëpp a waa Grand Yoff sama dëkk sama sama Paris. waaw ñëpp a ngi fi di Grand Yoff mooy sa Paris la France. Grand Yoff mooy sama Paris la France. d'accord naka waa Arafat. ñëpp a ngi fu añ bi tollu naa dëggeen leen taalagu leen añ ba onze ba léegi onze jot dix heures waaw waaw waaw ah waaw jeex na léegi lan nga lan ngeen bëgg a togg tey man hmm. tey hmm. ceebu yàpp laa ñaata ñaata moo lay doy pour sa ceebu yàpp kër tey dix mille dix mille baax na. Mm. jeex na kon yeew kon kon yeewu leen tegal na la ci cinq mille muy quinze mille. merci merci. ñetti junni yoo xamante ni yeewu leen moo la ko may grâce ak Jupiter. merci mais man Mado man Mado daf maa neex Mado. Eh, Mado. <laughs> man dëgg la man maa la gën a bëgg koo bëgg bëgg na la. waaw bëgg naa la trop macha allah. yàlla yàlla xeb dolli maa ngi ñëw Grand Yoff seet si la ñu ràcc daxin. gis nga li moom pàccal ma xam ah, jeex na tàkk. jeex na merci beaucoup ñu ngi lay gërëm bu baax ah. alors tout de suite euh, dañuy jàll euh, ci li nga xamante ni moom la ñu bijou indil tey. Mhm. ah en ñuy toog ak Ngoné Ndiaye géwél pour ambiance suñu ambiance euh, bijou li mu ñu indil tey nag il faut ñu xam ko.